bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xayra qadimi wa sallama taslima eh, man mama Njaay maa ngi defal sëriñ Kab Fall fii ci Mbakke lépp ci maam jaara ci soxna su mag si nga xam ne moo tax lépp am fii ci biir këram ci Mbakke te daraja xaadimu rasulullah tarawlu leenu sant soxna jaara ngir moonu may li tax nu sampi daara tarawlu leenu sant soxna jaara ngir moonu may li tax nu sampi daara bu leen ma tàngam lu bu leen ma tàngal bu naxal ndoxum ki di tàngal karaw du leen nu sant soxna jaara ngir moonu may tax nu sampi daara bu leen ma loo bu leen ma tàngal naxal ndoxum ki di tàngal jalantu leen tew bi seeni ak seeni xol ma ubbi seeni bopp te génne seen bagaani xol te taaten mam jaaro waamele ku naan yaabon taw na bawal kajoor ak njaambur bawal ngaan kumar ëllëg dob jaambur waaloo ngi wal wali di gental waalo ngir naan ci géejug doomi asta waalo jaaraamam jaaraam ku am jaaraamam yaa kaasa doobaray karaama jaaraamam jaama maste ma feeru poroxaan jaaraamama maste ma feeru naewel se gi neex na waaju naan si farwel jaaraamam jaara ma feeru poroxaan na xuut de yoo noo ngi detam ba gana de tem nañu banaan ba mandi yaay mbambulaan sam nu xajul ci xandi ñëpp a ngi mostab liggéey ba saalum fuute futtiku nañu sagen ne maalum yow sa añub liggéey bi dem na penku dem soo baara kàlla liidug faggu yakkal nga waa geeje yakkal waa jeeri ba ñëpp gi jël yow ba fu joore mbay gan nga bay nga bayaay ndande jigéen ñi booyal yow nga bay bandindi jigéen ña soxla la ñoo yaa doon soxna daanaan nga um nga lambi doomi soxna jigéen ñi soxla la ñu yaa doon soxna daanaan nga um nga lambi doomi soxna moo tax jigéen ñi seeni doom ne meng jiréer a feeñ yow sa doom ne feng moo tax jigéen ñépp seeni doom di xaadam di gonte kay xëy yow sa doom di yaaram moo tax jigéen ñi seeni doom di xaadam di gonte kay xëy yow sa doom di yaaram yaa tax jigéen ñépp seeni doom seex budul ko nag yow dama bay soox te kalal ak jigéen ñi bu sabali xaw naa araam mel na la yàlla gi aali te kalal ak jigéen ñi bu sabali xaw naa araam mel na la yàlla gi aali di tudd seeni doom di tudd bamba araam na ngir moom rekk attan yen ba yow yaa di bu sabali ñàkkoo cangaay ndeke nga jog sang nu jox nay gaay yaa tax jigéen ñi seeni doom di meng yaa jigéen ñi ñépp yaa tax jigéen ñi lamasu ay malfa nuy soli aw sa fu nu soom nu jël ba yaa tax jigéen ñi lamasu ay malfa nuy soli aw sa soom nu jaar fa jigéen ñi dañ gaar di woddoy soppe góor ñi pii ji baxa ñooy rof yaa suturaal awre yi dindi joote mbakke nga mel na ndar jabaa ngay juuti laam fa gétti ndar te am si ndooni yon ngu ko waa tuuba gedek ci ndoodi laam fa gétti ndar te am si ndooni yon ngu ko waa tuuba gedek ci ndoodi jaaraamam jaara ku hem jaaraama yaa kawal sa doomaray karama jaara maam jaara ku am maqaama yaa ka wal keroog bisub qiyaama jaara maam jaara ku am ay xarbaax yaa ka wal sa dooma feeñalug baax jaara maam jaara kuy faj aajo yaa ka wal sa dooma faj su naajo jaara maam jaara ku am widaaya yaa ka wal sa dooma am widaaya jaara maam jaara ku am tey junne yaakaar sa dooma jommal jinne jaara maam jaara saarful jiimi jox naa la jukkay rabit yeemu jum ko jubal tey jàpp yow tey julli tey jàng tey joxe baleer jolli te jikkoy mooy bëggalim amoo leen jigéen bon ñu ko amoon yaroo leen doo janni daawula jeey doo jeyu doo jaayoo ko jaay ci jeyi yaa soobu yoonu jannata nayimi koloroyul dem jaaramaak jeyimi saraagi tax na baragal nga yàlla rafet rafet njortu taxam nga yilla réewoo réyoo réeroo ne naa doo rummi doora mbaaj bu sabaali amoon nga faayda amoon nga fulla te fit am fitna yàlla fal la nga am nga kersa am karaama am nga ngërëm yow yaay borom maqaama amoo kañaan goree woon am bali doo dox di kekkantoo ko kiituwaale marché ji misaali tuuti laaj leen ko maami soxna faati tuuti maam samba mariyaama ma daa daw cem lef am da liman jaara moo ko taalif noon na bagaan gi woon fi soxna jaara mooy reerukaay bépp dongab mbande ma musta te dañ daarootaan mooy naanab kaay gaa yi koy seetaan mësula siis mësul dox di bodde mësul di wex wexloo ko dox di gëdde daawul werentee ka xuloo na njël di moo tax jur nga kuuy jur mbol di kuy daay ma am sëriñ mamar moom mbool dey di daam bu jogi tooñ mooy baara danga lewe na ma njaboot ne sherdi moo tax nga jur jàmbaar ji mel ne gaynde daaw la songante ka dox di daane aka defante tax na am nga waane wàcc nga jaajëf yaa selong lu busa yaa tax ba ni seeral ka buusu séerul ci àjjana nawul iini naa lay muriti ak doom lil xiini maanta jaaratul ilaaya maryaama mooy si turu mag bilaaya moo tax ñu naa la jaaratul ilaay maryaama mooy si turu mag bilaay ummu xalifatu rasuululaay muhammadin walde abdulaay ummu imaamu awliyaawulaaw am nga maqaamati rijaalilaay am nga lu kenn amul bileehi maam jaaraneel alhamdulilahi maryaama foxti muqinaatulaayi sa dooma gan ku jàngi bismilaayi moo donnu ahmadu abibulaayi moo ma si gis amiinu wahilaayi yaay turandoo maryaama ummu isaa saayidatu nishaawu waaw nga si isaa moo donnu isaa madiru awlaay moo doon Muusa kalaamulaay moo doon xibra may xalilulaay moo doon haadama shabiulaay tuubaa liman tabbi ahlalaay waynun liman ankarahum bilaay lañu joxoon Muhammadul Mekkiyu mi ngi jox Muhammadul Mekkiyu lañu joxoon Muhammadul Mekkiyu mi ngi jox Muhammadul Mekkiyu مرحبا أم أحمد المكية وعز دين أحمد المكي مرحبا أم أحمد القديم قليل في البراغ لا يسومه مرحبا أخت أحمد المصابة كما زرت تامنا توبي روبي tatay dojak bi añ la defoon fa naawel sañam su musta doj te duñ ko ñaawal musiyaa bu ko sóoru ci réewi saalum te soxi takk mbaa kayit fulaayam yaa baaxu tur buso te baaxu askan yàgg siyaare ngeen ci yoneen yaa rafetub juddu te baaxi waajur ku xañtu sey sidiit di gisul ngor maam yaa gàddaaya gedee ki tooro diine goree te jubóog lam tooro musee fuleena jiitu cig wilaaya mbaal quraan mbaa xam-xamub diraaya ñu fuukaree mbirum waliyu ngi ay sërif lañ ñooy doone xaliyu bamba ne ma naayab jant fenk ca ma mañ tudde ma maranda leer gi bawam bu soobe suuxi mbàkke royaat caas kan wadi mbàkke mbàkke jant be fenk na lëndami daay bi di suux na suuxi leen bar feeñ na sumoosi doomi jant ak weer nga yow jarula misaal nde fes nga nga tembel bëreeroon te cosaan ñi di ko jeex feeñ na fa mbàkke léegi ñëpp di fa seex sayqu sooxi yaa di seexub seexi balul bu doori yaa weeru weeri kun mun faqiira yaay saqum doole siitu aqiru darajal nga gooliw umul masaakiine e miskin yaa abol yatiimi yaay kenul jiriimi man aka mbàkke yaay samsu diine leel nga njaambur ak bawal ak siin sigel nga càllaluk abibu laay man bala xaysa weeru gan bilaay yaa tax ba képp ku setoo ji mbàkke bu ne juneet yàlla barke waa mbàkke saa ñankaak mbàkke bëri leer na nga leen ñëpp di waare waa mbàkke saa ñankaak mbàkke bëri leer nga leen ñëpp a di waare defar nga say bokk defar aw jaambur defar bawol defal kajoor ak njaambur defar nga say bokko defar aw jaambur defar bawol defal kajoor ak njaambur ñaata faloog ñe doon daara amuñu woon ku mel ne doomi jaara ñaata faloog ñe doon daara amuñu woon ku mel doomi jaara